malik ngoom mujj nañ koo tànn li ëpp ci mbër yi moom la ñu euh, joxoñoon ab baaraam ni moom la ñu bëgg mu tànn leen ginnaaw ba ministre bi génn ni tànn guñ kenn démb nag bi mu tànnee gis nañu Malick la mujj doon moo remplacé Birak. waaw loolu de lu am solo la loo xamante ni yaakaar naa ne ñëpp xamoon nañ ko. Mhm. amul ku ko umpale woon ndax jàpp nañ ni bu fekkoon ne ki fi nekkoon moom moom moom la fay bàyyi. li fi am lépp du fi am day ñëw rek daal di koy continuer mais ba mu ba mu demee ba ni dem leen ngeen tànnal seen bopp ak. xaar leen tuuti ak ñu ngi saytu si nga war a xam ne Malick ngoom la ñuy tànn. ndax ñoom ñaara fi nekkoon mbëri ni Malick ngoom moom moo leen doy te moom moo leen wax ni leen tànn leen. Malick it bu ñu ko xoolee ay jaar-jaaram gis nañu ni war naa mën a yor CNC bi. mais à partir de sortie bi nag moom li mu war a def mooy taxaw temm si arbitre yi am salaire di fayeeku moom Malick. mu taxawaat temm si def fi loo xamante ni CNG ba mu dalee am ba léegi kenn mësu ko fee def si mbirum organisation làmb ji teel a tàmbali 19 heures làmb ji jeex takk naan di wala 18 heures nit ñaa ngay ñibbi. ak combat bu mu mën a doon bu heure bi jotee nañ ko nañ dagg oog nañ arrêté combat bi. 18 heures ñibbi waaw 18 heures fu mu jotee. ñu ah, arrêté teel non te baax na. Hmm. mu teg ay règlement yu wóor amut mbër yi buñ bu ma tegee yenn règlement yi mbër yee ma fi teg amul dara nañu teg ay règlement yoo xamante ni ñëpp dañ siy tënku ñu wut sécurité bu doy si biir ak si biti mbër yeet mbër moo xamante ni sa koñ say supporter jóge nañ fa nangu nañ saagub kenn ñu xàmmee ñu xàmmee maam nangu nañ saagub kenn ñu xam ne supporter yi diw la ñu aj mbër moomu eh. waaw ku si ànd ak ay sàcc bu ñu agressé ñu aj mbër moomu eh. waaw loolu fokk ñu boole ko ci règlement bi kon bala ngeen a dem da wax ni leen bis bu ngeen sàccee téléphone ab jàmbur wala ngeen agressé jàmbur man mii ngeen àndal dem sa làmb ji du leen ànd ak man ndax dañ may aj kon nag silvi si leen sangu ba set sol seeni tiset dem dagg toog ma bëre daan baa ma daanu ñu àndaan ñibbi mais affaire dof-dof lu yi ñii ñuy def ak di sànni xeer di dox di direeku ak di tey am na façon daal yoo xam ne dox di direeku mel ne ku soxlawut sa bopp dara taw tëli bi di xaas-xaas yooyu képp ku ko def da ngay war a aj mbër mi nga àndal képp ku fi def dof laa supporters yi yëpp nañ si na si na si arbitre bi jël ay matukaay di aj mbër yi bu baax a baax a baax a baax a baax loolu dong moo mën a régler làmb ji te sécurité bi doy te ñuy jàpp di duma nit ñi di gis. duma waaw. duma mooy. wut ak liif téye ko nii nga gis ku def lu mu wër def mu nga wàcc muy dal ñëpp di gis bu yàggee nañ régler. mais ñu si bëri dañ leen di arrêté supporter yi bëri dañ leen di arrêté yóbbu bu lamb jeexee ñu bàyyi leen ñu ñibbi. mais li ngay wax pàccoxoo la indi. non non du indi pàccoxoo. simple par la indi. soo nee léegi mbër mu ñu gis sa supporter agressé nit. ñu aj la. wala mu xeex ñu aj la. Mhm. su boobaa man mën na maa aj lu mbër. Hmm? waaw waaw baax na. ma aj lu mbër. waaw ndax mbër mu ñàkkut fayda yow nga yow nga nga bokk nga bokk koñ bi dem ànd ak moom ñaari tëli di tooñ ba àgg stade hmm. te te gars yi ni ko nit la waa xaaral rek exemple yow tey Assane Mesere fan la dëkk Sénégal partout dans le monde boo demee fekk fa sab soppi Touba nga dëkk bo maanaam dëkk boo dem fekk fa sab soppi xam kon mënoo ci dara. Hmm. kon mënoo wax ni supporter bu jógee fee xaaral xaaral xaaral mënoo wax kon supporter bi dëkk dëkk fee exemple jàmm gën moom rek a war a topp Siteu kon que dëkk parcelle waru dem ci Siteu ah kay parce que am na fa ay soppe léegi nag su fekkee ne man son bi damaa gis Assane di bëri ak Sa Ndiogou hmm. ma bëgg laa tuumaal mën naa sol hmm. sa boo solee man maa ngi dëkk ñaari télé wala départ ñaari télé dem stade yow nga dem Grand Yoff agressé fa dañ lay dóor yow dañ la dóor ba yeew la mais bu fekkee ñaari télé nga ànd bokk si samay supporter ngeen ànd di direeku di dem hmm. boo defee lu mu war a tax kenn si supporter mën na eh, kaay nga ñëw mu dóor la ko nii la bul yàq bul aj suñu bëri bul tax suñu bëri ñu koy aj waaw maanaam supporter bi koy xëcc mooy xëcc moroomam moo ko xëcc ba ñëw ñu ko dangaa bëgg xanaa ñu aj mbër mi lii dañ koy tere nañ silwiise dem ñëwaat d'accord ñoom seen biir ñoo war a régler seen bopp palaa la policier yee régler d'accord waaye nag li ñuy def si làmb ji bu làmb amee du doo mën a dem ngay tiit di jaaxle loolu dafa arbitre bi na si taxaw sécurité bi taxaw ci làmb ji teel a jeex ñëpp teel a ñibbi jël yi di rafet jël bu rafetul ñu aj sa mbër ah. joxe hélas jël bu rafetul maam boo daanee jël bu rafetul wala nga daw ñu aj la waaw <laughs> ñu nuyu Max Mbargaan bu baax a baax a baax. jërëjëf arrière ci làmb la bokk asal. Njóobu. Mhm. làmb ji am na njiit lu bees. waaw ñu bari nag am ñu yaakaar. Mhm. ndax ndaw la maa ngi lay wax premier discours am bi ma dégg moom nee na. Mhm. lépp lu ñuy génne. mu jëm ci làmb jeeg lu ñu def dafay leer ñi ko war a euh, ñiy seq làmb jeeg di ko fekk. maanaam amatul lenn luy am ci lu lëndam moom lañ mujjee tànn. waa tout d'abord ñu koy ñaanal sunu borom may ko ndam hmm. ci li nga xamante ni bii moom lañ gàll ci loosam mu nekk loo xamante ni eh, neex na eh, neexut parce que dafa boole eh, ay mbir maanaam ngi xëccoo ñu tànn la loolu neex na hmm. waaye lala la war yow it ba ñala tànn ba ña gàcca loolu mooy tax euh, mbir mi dafa am lu mu laaj dafa laaj liggéey bu liggéey bu saf liggéey boo xamante ni bi liggéey bu kii la ko waaw jàpp naa ni nag moom nekk na koo xam ni boo seetee arbitre la woon waaw arbitre yi mooy comme li ma la expliqué woon l'autre jour ñu am jafe-jafe lañ ci làmb ji mm-hmm. mbër yi am jafe-jafe ci làmb ji mm-hmm. du dëkk waaw boo seetee am na yu bari yoo xamante ni bi c'est ni bi mu nekkee arbitre gis na ni arbitre yi jàppoon nañ buñ ko aboon doon na gën ci ñoom xam naa dana ci bàyyi xel mm-hmm. doon na tamit yëg tamit bu baax a baax jàmbat yi nga xam ne mbër yi ñi ngi ko doon faral di jàmbat bañ na ko sax bañ ñi ëpp ci ñi nga xamante ni bi soisir nañ ko ay mbër lañ kon peut-être que ni xam nañ ni kii kat mooy ki leen gën a jege parce que boo seetee dafa mel ni ña doon jiite dañoo sori ñi ñu doon jiite. <laughs> waaw waaw dañ leen a sori woon ko amuñu accès ci ñoom boo seetee ñi ëppoon accès ci ñoom sax. Mhm. mooy communicateur traditionnel yi nga xamante ni bi ñoom reporter rek. mooy seen mbir ñoom ñoo gënoon a jege eh, mbër yi que waa CNG. maanaam pareen saay sax bu ñu amee jafe-jafe sax. da ngay jaar ci benn communicateur traditionnel pour mu lijjantil la problème yi. xam nga loolu foofu la problème am. bu ñu ba koy reporté mooy régler problème yi. waaw sa digganteeg CNG. waaw moo la mën a ñaanal ñu may la bu ñu la ajee moo lay ajjilu. Hmm. comprendre boo amul combat ñoom ñooy jaar fexe ba nga xamante ni am nga ko maanaam communicateur traditionnel dañu amoon doole ci la moo tax bu ñu doon heureusement bi bu mbir mi tàbbi woon seen loxo la musiba la. Hmm. waaw mbir bi tàbbi woon seen loxo da ñoom dañoo naroon a fuxaat ci làmb ñoom hmm. dañoo war a toog fay rek di reporter mais dañoo naroon a foqat ci làmb hmm. déggoon naa benn booy bu ni diw mooy régler kaay yi mooy régler làmb ji mooy dox combat yi voilà donc foqat ci làmb ji lañ doon def communicateur la donc di féliciter aussi tamit ministre bi ci dogal bi nga xamante ni bi moom la jël dogal la boo xamante ni bi jàpp naa ni hmm. dafa seet li nga xam ni mooy li gën ci làmb ginnaaw bi ñu ko présenté candidat yi waaw seet na ki nga xamante ni kii daal wax dëgg fa yàlla bu ko tegee jàpp na ni kii mën na am ndam ci yëf yi mm-hmm. donc nag ñu ngi koy ñaax di ko wax ne ko mu góor góorgóorlu te xam ni mm-hmm. li ko fa yóbbu mm-hmm. du alal du lenn loo xamante ni bii def na ko maanaam jikkoom moo ko yóbbu ci poste bi parce am na noo comportement boo xam ne bu ko meloon ñi ko tànn duñ ko tànn ah donc ñi ko tànn nag bi ñu koy tànn dañ ko tànn en tant que nit. Mm-hmm. nit ku nite. waaw magul si nite googu nag nga xamante ni gii moo tax ñu tànn ko. Mm-hmm. na ne ci loolu rek. bu ko mm-hmm. kenn soppi. na fexe ba xam ni nii ñu ko tànnee. nii lañ ko tànnee. nii mu mel nii nii la mel parce que ñi ko am na yu ñu gis ci moom ba tax ñu ne nañu choisir ter euh, personne pour mu nekk. donc daal na xam ni nii mu mel bu mu ci soppi leen. doxee ni mu daan doxee. gën a dindi yenn yi nga xam ne woyefal yëf yi nga xamante ne bi daan na am. parce que mbër yu bari doon nañ wax ne dagg gi ñu leen di dagg dafa metti dafa def nii yooyu yëpp na ko xoolaat. Mhm. bu ko defee wàññi yenn yi fexe daal incha allah rabbi jéem a doxal en tout cas jàpp naa ne xam na aussi tamit ni mu war a collaborer changer équipe bi fa nekk. Hmm. waa il faut dégager yenn équipe yi. Hmm. a boo xam ne moo ngay liggéeyal parce que ah. boo jëfun ndànk rek même pratique yi na changé système bi. Hmm. waaw na ko changé. na am équipe na am équipe boo xamante ne ñëwoo ci doxalin de waa ji yi mu wax. Hmm. ci règlement yi war a teg waa ji moom day xuus. xam nga waa ji moom. ah nee na kuñ dàq sa kii ah, waa ji li muy wax moom xam nga loolu moom moo ko ñemee wax quoi xam nga fekk tamit par exemple saa waa ji moom wax dëgg fa. ah comme ay waxam dañ koy jàngale ci école yi. nañ ko ba waaye nañ ko bàyyi comme en tout cas man école bu sama doom nekk. <laughs> buñ ko jàngale ah, dana ko jàng de. laaj de leen gëstu ba xam <laughs> bu ñëwee nga diglu leen ndax tudd nañ fa Assane jàngal leen waaw mais El Hadj li mu wax dina jëlee dina jëlee de maanaam ku sa supporter agressé. <laughs> dañ lay rajee ci affaire maanaam dañ lay aj. waaw yow moom d'accord naa ci ba mu des nag. boo daanu daanu jël. en tout cas daal hmm. euh, bu ñu ko jiitu ci kii am moom def na loo xamante ne bi yóbbantewaale na. Hmm. bon xam nga moom yóbbante na ci côté bale man yóbbante naa ci beneen côté bi. Hmm. donc moom après moom moo di dogal yi moom la kii dina déglu nit ñi. déglu aussi tamit li ko xam ne ñoo ko parce que euh, li ko li Assane wax tamit lu am solo la. Mm-hmm. Euh, man maa la fal rek doxal ni may doxee tamit. Mm-hmm. bul nangoo doon marionnette kenn. Ah waaw parce que pare na saa yi am na ñoo xam dañuy nekk ci sa ginnaaw pouse la ba noppi. Mm-hmm. bëgg laa influencer. Ah bul nekk marionnette personne. d'accord waaw. pour làmb moo tax nga ñu fal la. am na noo mel ki la fal fal na la li nga xam ne mooy doxal làmb ne bul fi nekk marionnette personne. Ah voilà